dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne yi laaj wi nga xam ni daal nañ koy samp tey ñi ngi ko jëmale ci Ousmane Sonko ndax dina dellu jiwaat ca tribunal bu Dakar le 30 mars dem wuy ji. Ousmane Sonko ci le 16 bile dafa bëggoon ñibbi këram am na ci benn instant boo xam ne moom xëccoo bi doxoon ci digganteem ak takk der yi Guy Marius Sagna mi ngi wax naan on veut rentrer chez nous dañoo bëgg ñibbi suñu kër. amoon na droit bañ a dem ca tribunal ba ñibbi toog këram ay avocat am daal di fay des di ka layool ci digganteem ak Mame Mbaye Niang. nañoo jugé Ousmane Sonko par contumace maanaam du fa daal di teew waaye du tere ñu daal di koy jugé ana lan moo waral loolu daal di wuñ koy def le 16 mars bile. tax ñu njott ne Ousmane Sonko li nga xam ne yëpp daal dina koy dund fan yi ñu weesu est-ce que du tax moom mu bañ a demati ca tribunal ba toog këram bàyyi ñi nga xam ne ñoo di ay avocat am ñu def liggéey bi ca na mu waree lépp lu ciy xew rek ñoom ñu daal di ciy réagir waaye itam njort nañ ne Ousmane Sonko ak jàmbaaxte gi nga xam ne moom la ko nit ñi xamee dina bëgg dem ca kanamu juge ba ci kanamu sénégale yëpp puisque audience publique la daal di prouver lépp loo xam ni dafa ñeel mbirum Prodac bi muy kii di Mame Mbaye jaaxal mooy daa am mbir moo xam ne mi ngi tegu ci wet gi mooy le procureur dolli ca la ñuy toppee Ousmane Sonko muy faux et usage de faux ndax dégg nañ kii di premier ministre di Amadou Ba mës wax ni rapport amul waaye pré rapport am na pré rapport boo ko déggee brouillon la nekkul lu officiel nekkul loo xam ni mën nañ koo jël apporter ko comme preuve mu nekk lu légal ndax amul ay signature yuy firndeel na lii nii kat lu ñu mën a toppee doomu aadama la loolu rek moom mooy problème bi moo waral Ousmane Sonko actuellement moindre erreur bu koy dal di def na dugg ci loo xam ne dina ko xañ candidature am ci élection présidentielle yu atum 2024 Malal Talla ñu gën ko xam ci Fou Malade ñi ngi koy dégg muy wax naan Ousmane Sonko dafa may gaay ab penalty ndax ñi ngi méttee métti jëm seen diggante ak Adji Sarr gars yi amuñu ci lenn ñu mën a leen ci tribord babord fu ne jéem nañu faa jaar waaye amuñu lenn Ousmane Sonko xëy suba wax ci lu ñeel wàllum Prodac bi may leen occasion boo xam ne mën nañ ko cee sonalee lii moom mooy mbir mi mooy situation bi fan la Ousmane Sonko di mujjee kenn xamul mbirum Prodac bi même Birahim Seck forum bind na ci ab livre bu leer nañ wax ci lépp li nga xam ne dafa ñeel mbirum Mame Mbaye Niang ba ci ordre de service bi nga xam ne moo ko signé loolu yëpp buñ ko tënkee da ngay gis ne am na acharnement moment boo xam am na itam ci kaw Ousmane Sonko ndax Mame Mbaye Niang daf ni Ousmane Sonko n'est n'importe qui warul taxaw di ko diffamer lu ci mënti am le 30 mars dinañ xam fu wànnante di mujjee ak i gëtëm waaye li ñuy ñaan mooy jàmm salaam ci réew mi te président ma Macky Sall moom la ñu ko dénk bu mu fàtte ne ndaw ñii di wàcc ci tali bi lenn képp moo ko waral mooy mbëggeel gi ñu am ci Ousmane Sonko yaakaar ni moom moo mën a changer suñu réew di Sénégal am espoir ci moom ba tax nanguwuñ kenn ku ko laal nanguwuñ dara di ko métti nanguwuñ itam kenn di ko teg mbir moo xam ni da koy dal di gaañ ba tax na jàmm ak salaam googu la ñuy sàkku ci réew mi waaye ndaw ñi itam yàq-yàq yi nga xam ni ñun kese ñoo koy fayaat après nañ ko dal di maytu ndax amul njëriñ amul sens Sénégal dong moo ciy perte Sénégal képp mooy subir les conséquences après ndax du Ousmane Sonko du Macky Sall ñooy jël bus tata yi ak dem dikk yi am problème mu dépense du Ousmane Sonko itam du Macky Sall ñooy xëy suba seeni ay njaboot ñu leen di jagat jagatee di yóbbu hôpital baa ñu leen di jaale si ndax seen benn doom dee na ci lu ñeel wàllu manifestation yi kon loolu yëpp nañ ci bàyyi xel demee ak stratégie waaye itam lépp lu ñuy def rek ñu koy calculer à la lettre te buñ fàtte ni patriotisme dafa laaj itam sàmm sa réew patriotisme dafa laaj itam bañ di piller ay butigu jàmbur ndax gis nañ borom bi nga xam ni di jooy loolu itam luy lor sénégalais yi la war ñoo jéema a ut solution bay indi problème nañ jéem a xool naka la ñuy doxalee te telle sorte que gàtta gàtta bi nga xam ni Ousmane Sonko woote na ko dina ko am waaye du tee lépp dafay tegu ci yoon lépp dafay tegu ci civisme ak patriotisme AGT News